ahlan bikum musiba naru lay lu ëpp ay temeri temeri million ci ay bagage mo lakk ba jeex tak ca park Lambaye ndakaru allah enquête yéen a ay ñuko xamal lu ëpp ñaar fukki camion yooyu set setal dëkk ba ñoom tamit lakk ba jeex tak niki demb ci guddi dal park Lambaye ba nekk Pikine lakk gu metti ba jéggi dayo safara sa jéqi ànd ak doole jo xamne laa wax ni mel les écoles yéen a kaay ne lakk gi métti ak garaaw gi mu garaaw moo tax démb bu Dakaaru mbooleem fu sapeur pompier nekk ak seeni oto ñoom ñëpp a génn te mënuñ ci lakk gi dara aa yaw seetal sapeur ya nekk Géejawaay ak ya nekk Malick Sy ya nekk Sicap ak ya nekk Parcelles Assainies ak mbooleem lu am ci ay oto ñaar fukki oto ak ñett juróomi fourgon ak ñetti citerne lañ andi ca ndox ëpp na fanweeri junney liitaru ndox ñëw dañoo fay ba sonn safara soldaaru réewum France yi nekk fii Sénégal ñoom la oo ñu ñëw dimbale leen ba ñu fay lakk gi l'observateur na ko hee defal ndànk de xanaa xamoon ne ginnaaw bi ñu ko fayee ba fay na dañoo toog mu yàgg gisaat fuy tàkkaat sapeur pompier dëppaat dem fay waat ko noo yëf yi dafa garaaw yenn commerçant yi nag joxoñ nañ baaraamu tuuma waa sapeur pompier nee bi lakk gi amee bi ñu leen xooyee ak fi ñëwee fa yàgg ñu ci les écoles yéen a kaay yéen a kaay l'observateur na leen ki lakkale lu bëri kay nga xam ne moo gën a méttile ci li am démb du kenn ku may Ahmed Fall Braya aa yaaw seet fukki camion ak juróom yoo xam ne Ahmed Fall Braya moo ko moom lakk nañ ba def dóom jeex takk te safara sa ñu ne déeta dafa lakk ba tax fi toll nii Dakar quartier yu bëri amuñu courant deux cent waroon dugal léegi cent dugal moo tax mun a fay porte plainte jëmale ko ci àlla xam li xam moom Aliou Sarr jëwriñ maire bu Kër Massar na leen wax leen wax ji bu leen ko raay parce que lañ war a toxal fi mu nekk du place am wala suñ ko mënta toxal nañ ko defar ba nga xam ne dana am ay yoon su lakk amee nit mën a dugg jàll mi ngi si wal fajiri a kaay la sala yéen a kaay na ko li nga wax noonu moo jafe ndax parc Lambaye la fa nekk mooy indiscipline ñàkk ak yar ak teggi nag xamadi gu mat sëkk moom lañ fa nekkee enquête yéen moo tax lakk gi di am surtout quotidien na leen ku wax ci lii wax ca laa gis ngeen ñàkk yar ak teggin ni amee ci marché yi ba muy lakk noonu la amee ci kaw tali ba tax chauffeur di rey doomu aadama yi nu leen neex la dawalee juróom benn téeméeri doomu aadama faatu nañu ci kaw tali ci ay accident lu ëpp téeméeri milliards ñu ñàkk ko ci xam ngeen loolu baaxut leneen lu baaxut ci réewum Sénégal mooy ngir mën a taxaw askan wi kàddu yi ni mel na mu ngi ko yëkkati ci forum bi ñu jagloon wàllu wér yaram bi ñu doon amal ca ubbi tala la sala yéen a ñu ko xamal li xamal moom Idrissa Seck mooy na partem bi duñ bokk tey duñ bokk suba duñ bokk gannaaw suba ci gàttal duñ mës a bokk di dialogue politique bi njiit réew Macky Sall woote idi nee maa bañ dew ma Dakar Times ne idi mi ngi ci tournée nationale lépp ngir waajal woote